càmmoñ na njëkk a raay loxoom ndeyjoor yejxal day def asaabiha yadihi baaraami loxoom al yusra bay càmmoñ xala atraafi asaabihi yadihi ci cati baaraami loxoom al yumna bay ndeyjoor suma yu mirru topp dina rombale asaabiha hoo baaraamam ya xala zahiri yadihi ci bitum loxoom ba wa diraahi ak xasabam ba waxad xanaa te fekk na mu lunkal mooy fekk na mu bank xale ci moom asaabi xaw ay baaraamam xataa yebbu loxo ba mu jot almir faqay ni ñaari conc ya xam nga dañoo taamu booy masaa loxo yi nga tàmbalee cati baaraam yi ba ñëwaat cati baaraam yi dañoo sopp itam nga njëkk masaa bitti loxo bi door masaa biir loxo bi loolu lépp nga neel la boo tàmbalee cati baaraam yi ngay wuti nag conc la su ko defee nag nga ngëpp loxo bi di raay di yooyu nag ba ci conc la daldi wajar bi ko waat nag ñëwaat ba ci baaraam yi moo tax mu ne su ma xal topp na def kafa xoo tengam xalaa baatini diraax yi ci biir xasabam ba min tay mi faq yi ci lemu lemu concoom ba wala ci lemukaayu concoom la xaaw bi dan bi mu ngi aji ngëpp xale yi ci moom xataa yeb loxo ba mu jot alkooxa dikku jara ba mi ne di ci loxoom alim naa bay ndeyjoor summa yu jur yi topp dana dawal baatina bax mi xii biir baaraamu dayam ba xalaa zahiri bax mi yadihi ci bitib baaraamu dayu loxoom ba alim naa bay ndeyjoor ni ñu koy bëgg a wane noonu la wax ni moom la ñuy tiime dañoo sopp mu njëkk a masaa biti loxo bi tàmbalee ko ci cati baaraam ya xam ne xam ne kon loxob càmmoñ bi mooy njëkk a raay loxob ndeyjoor ba tàmbalee cati baaraam ya te njëkki bitti ba ñëw ñëw nag ba ca conca la kon xam nga boo agsee ba ci concali kon masaa nga bitib loxo bi kon nag da ngay wëlbati ténqal loxob càmmoñ bi teg ko ca foofee tolloog lemukaayu concali ca biir loxob ndeyjoor ba ndax ne ko masaa woon nga biti bi moo njëkk kon da ngay ñëw nag masaa biir bi nga daal di ngëpp nag di raay rek muy wéy ba àggaat ca cati baaraam ya summa yam sax topp dana masaa al yusra loxob càmmoñ ba bil yum naa ci loxob ndeyjoor ba maanaam bu loxob ndeyjoor masaaye bu càmmoñ nee nga wax léegi na bam ndeyjoor walbatiku fay ko bor moom itam na bam ndeyjoor walbatiku masaa bopp càmmoñ xaaka saa niki nii nga waxe woon ba tey nen rek la fa isa balaxa ndem jot na alkooxa dikku jaraba masaxa mu masaa kaf faxoo tengam al yum naa lay ndeyjoor bi kaf yi ci tengam al yusra lay càmmoñ ila axiri atraaf yi ba ci mujjug catam ya maanaam li ngay mujj daal mooy bomb tengalee ci tengalee maanaam tengal ndeyjoor nga nga masaa ko ci tengal càmmoñ teng yi bokk raayante bokk jàppante looloo ci mujj noonu ñu waxee nag bu la xawee jafe yow mi dégg rek noonu te jàkkaarloo ak bi ñu koy wane amu ci solo jàppal ni moom moom lay bëgg a wax soo fexee rek baraay loxo yi ba mu daj rek bàyyiwoo fenn rek baax na moom daal noo fexe fexe ba baraay fit ba mu daj rek moom daal nay baax moom lay wax naa. walaw ma sax doonte masaa woon na alyum naa loxob ndeyjoor bi yusra ca loxob càmmoñ ba wa yusra mu masaa loxob càmmoñ ba bi yum naa ci loxob ndeyjoor ba kal ficha naka mu ko soobe wa tayassara te mu jàpp ni xale yi ci moom wa aw xaba wa aw xaba te mu matal almasa masaaga la ajji sa awoo kon mu doy ko foofu la daano nee na boo fexe woon ba loxob ndeyjoor bi raay nga ko ba mu daj te raayee ko loxob càmmoñ loxob càmmoñ itam raay nga ko ba mu daj te la te raayee ko loxoom day joor nga xam ne bu ci nekk daal raay na moroom ba mu daj te defewoo ko nee ñu waxee woon tam du ci wàññi dara du tee rek moom bu fépp matee rek daal nay baax wa iza lam yajid dem amut aljunubu aji amee janaaba awil xaidu wala aji mbërëk alma andox li tuxuri ngir cangaay dayam mama kon ñu tiim ñoom ñaar wa sallayaate ñu julli fa isa wajadaa dem am nañu almaa ndox da taxaraa ñu sangu wala mu wàññi daa te duñu baamu maa la nga xam ne salla yaa julli woon nañ ko maanaam ko amee janaa bu war a sangu farata wala jigéen ju deretam jeex mu war a sangu ndax deret ju jeex ja waaye amuñu ndox nag mu nekkoon dañuy tiim tey julli rek nag suñ demee nag ba am ndox door a sangu lañ jullee woon ca tiim ba du aajoo ñu di ko baamu ndax ci ndigal lañ ko tiime woon ci lañ ko julee woon wala yàtta u du sañ a laal maanaam du sañ a joteeg arrajulu góor imraatahu jigéenam mën naa nekk soxnaam bu dee jamonoy jaam amee muy jébéer mën naa nekk jaam bu jigéen allati ja nga xam ne in xataxa dog na xan xaa walis ko damu xayidin dereti mbërëk aw nifaasin wala dereti wasin bi tataxori ci laabe ga bi tayam mi ca tiim ba xaataaye ji da mbate mu amee nel maa ci ndox maa la nga xam ne maanaam maa loo xam ne tata taxaru dana sangoo bi ci moom almaratu jigéen ja suma maa topp la nga xam ne yetta taxaraani danañu mën a sangoo ñoom ñaar bi ci moom jëmi xan boole seen moom daal soxnaam moom deretam jeex na waaye amul daal ndox moom sangoo moom soxna sax nga xam ne kon bu dee julli moom soxna sax day tiim rek noonu waaye amul lum sangoo kon nee na jëkkëram du sañ joteeg moom ci kaw rek tiim ga muy tiim mel ni laab na dëgg la sax tiim gi ak laab la waaye daa wecc rek cangaay ngir julli gi waaye taxul nag mu wecc cangaay ci mën a joteeg moom day bàyyi ba am ndox moo xam ne jigéen ja mën na caa sangu bu jigéen ja sangoo ba noppi na nga xam ne sañ naa joteeg moom nag te it na fekk mu amee ndox moo xam ne ñoom ñaar gannaaw buñ jotee ba noppi daañu ci mën a sangu te xam nga sotti ku ne yetti cangaay ndax jigéen deretam jeex moom daa war a sangu léegi nag amutoon ndox kon balaa jëkkëram mën a joteeg moom day bàyyi ba mu am ndox mu mën a sangoo moom jigéen ji te it bu amee ndox ba sangu ba noppi it balaa joteeg moom na ko wóor ne daañu am ndox mu mën a sangoo ñoom ñaar gannaaw buñ jotee ba noppi loolu kon mat na cee seet. waaye loolu nag dañuy wax ne bu naree yàgg ba nga xam ne léegi ñàkk gaa jote dana andi jafe-jafe ci moom kon mën naa joteeg moom rek ci tiim googee muy tiim maanaam du jar muy xaar ba mu sangu mën naa fa joteeg moom ndax rek yàgg muy yàgg te amuñu ndox wa fii baabi jaamihi salaati nekk na ci buntub jaamihi salaati shay'un dara min masaa'ili tayammumi ci masalay tiim leen am na bunt bu nekk kanam bu tudd baabun jaamihun fi salaati boo ci àggee dana ci wax lu bokkaat ci tiim baabu li ab buntu la fil mas yi ci masaa xalal xuf fay nit ñaari sang dañ koy wax ay sang nag waaye mooy ay bot daa am ay bot yoo xam ne bu ca sart yi dajee da nga mën a raay ci kaw rek bañ a rax sa tànk wala xooñeel na ko ay yam sax mu masaa xalal xuf fay nit ñaari bot wala nga ne ñaari sang fil xadari ci teew ga wa safari ak tukki ga maalam yan si xuma li feeg sumuu leen ñoom ñaar dafa wax ne bu fekkee da ngaa sol ay bot te sart yi daje ca kon na nga man saa yu sam jàpp tojee ba nga dem bay jàpp nga raay ci kaw rek bot yi te du aajoo ngi suñ bot ya di raxas tànk ya li mu wax nag ne li fekk summiwul bot ya dañoo bëgg a wane ne bu ca sart yi dajee ba mu tàmbali di masaa ci kaw bot yi du tee nag saa yu demee rek ba summi bot yi nga xam ne kon permission bañ ko mayoon maanaam may gañ ko mayen muy masaa ci kaw bot yi rek léegi jeex na faaw dana aajowoo bu xasee summi benn tànk rek rawante na mu summi yaari daal yëpp kon faaw day raxas tànk ya loolu nag benn rek la ci yi jeexal permission bañ ko mayoon ndaxte ndaxte bokk na ci yi jeexal permission ba mu dem ba amee janaaba bu xasee amee maanaam bu dee sangu janaaba ja du mën a masaa ci kaw bot yi rek te bañ a raxas tànk ya déedéet waaye nag xamal ne ni mu koy bëgg a waxee day gàtt rek waaye sart yi moom daa xaw a bari ndax mat na fukki sart mooy wa zalika loolee isa add xala ndéem dugal na fii maa ci yaari bot yi rijlay yi ñaari tànkam baax da an xasalahuma ci gannaaw ba mu leen raxasee fii wa booyin ci am jàpp taxil lu moom dana dagane bi ci moom assalaatu julli nee na nag balaa mën a masaa ci bot yi day fekk ba muy sol bot ya mu jàpp njàpp mu sotti moo xam ne dem na ba àgg mu door a sol bot yi daal di ne fa haasa kii allasi mooy ka nga xam ne isa ahdasa ndéem tojle na wa tawadda ate mën na ma jàpp masaha mu masaa xalihima ci ñoom ñaar wa illaa bu dul loolu falaa du ca sañ a masaa dañ koy firee wa illaa ndéem déet waaye moom wa illaa bu dul loolu falaa du ca mën a masaa kii nga xam ne daal moom ba muy sol bot ya fekk na mu njàpp njàpp mu sotti waaw kay bu solee bot yi ba noppi nag gannaaw bu mu toj lewaat dana mën a masaa ci kaw bot yi te taayee sum sumi bot yi di raxas tànk ya waaye waxin woowu daa gàtt jëmmi dàll yi ci boppam dañ ci sart juróomi sart moom mi sol bot yi te sañcee masaa ñu sart ci juróomi sart nga boole ko muy fukk njëkkale dégg woo bot yi la nekk der benn ngoog fi mu toll nii xam nga kawas yi nga sol nuru na ne ba nay bot boo ko dee sol waaye kawas yi kese yi fi mu toll mënoo cee masaa kawas yi kese yi boo ko soloon war a jàpp da nga koy summi rek raxas tànk yi waaye doo mën a masaa ci kaw kawas yi ndax kawas yi nekkul der te itam na der wa laab benn la ca bu doon deru mbaam xuux mbaa deru sobewu deru mbedd wu sobewu di su ci mën a masaa muy ñaar kon na laab te itam nañu ko ñaw buñ ko taqalee ci kol mbaa lu mel noonu du baax day aajoo ñu ñaw ko te itam lu mu gàtt gàtt na ëmb doori yi fi nga xam ne boo doon jàpp da nga raxas ba àgg fa te muy doori yi na dem ba ëmb ko soo ko defal mu mel ne ay mukki rek xam nga ay mukki moom du sàng dana am lu mu dul sàng ci ci doori yooyu loolu fu mu dul sàng day aajoo mu sàng lu mu gàtt gàtt na ñëw ba ëmb doori yi mu des benn nag mooy bu mu yaatu bopp mbaa mu xat bopp nga xam ne ku la seen ngay dox rek mu daal di xam ne yow sa bët yee tax ngay doxee nii waaye ca dëgg-dëgg noonu du soo doxin kon bu mu xat bopp bu mu yaatu bopp na nekk rek du digg doomu maase sart yooyu moo aju ci dàll wi ci boppam mooy nay der tey der wu laab te ñu ñaw ko te lu mu gàtt gàtt surtout du farata ba te it nga mën caa doxe na nga mën a doxee rek nga ñëw nag ci waa ji nga xam ne moom mooy sol. lañu njëkk a sartu mooy sol ga muy sol bot ya bu mu nekk loo xam ne yoon aay woon na ko ko muy dëgër bopp rek def ko nee na xam nga ku xës ku xës armal aj wala xumra te yëwi ko wut du sañ a sol ay bot góor goo xam ne daal daa armal aj mbaa xumra te yëwi ko wut sañu sol sañu te sol ay bot kon nag bu solee ay bot defu ko ci ndigal kooku mel noonu du mën a masaa ci bot ya ñaareel bi mooy sol gam koy sol bu mu ci jublu rek dafa xew sama morom di ko def dafa rafet dafa neex mbaa naa ko sol rek ndax su ma waree jàpp rek mën a masaa ci kaw déedéet da koy sol kay ngir fegu ay jiit wala ay jaanu ay deme noonu wala boog ngir roy ci sunu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye bu ko solee ngir bànneexoo ko rek ngir tiitaroo ko rek moom du ca mën a masaa sartu ñetteel ba ci moom mi nga xam ne mooy sol bot yi mooy ba mu koy sol fekk mu amee ak laab mel ne bu demoon ca wana wa faj aajoom daal di génn rek daal di sol bot yi xam ne boobu fekkul mu amul laab kon kat bu bëggee jàpp du ca mën a masaa ñeenteel ba mooy laab googee kat na nekk laabug ndox su tiimoon ba àggal nga xam ne tiim moom laabug suuf la di ko nag sol bot ya ko it boo muy sol bot ya ci laab la waaye day laabug suuf laabug ndox lañu wax bu dee laabug suuf bu demee bu bëgg a jàpp day raxas tànk yi waaye du ca saña masaa ba ci mujj nag mooy ba mu doonee laabu ndox na nekk laab gu àgg ba noppi mu door a sol bot ya nit ñi faral la def boo raxasee benn tànkum ndeyjoor daal di koy solal aw dàllam bu ko defoon ca bot ya naka mu raxas rek tànkum ndeyjooram daal di koy solal aw botam door a raxas tànk ba ca des day mel ne kon sol na bot ya te fekk laab ga àggutoon maanaam fekkutoon jàpp ma àgg ba tey kon bu demee bay jàppaat du ca mën a masaa kon sart yaa ngook wa sifatul mashi melaw masaa ga añ yej xala moo di mu def yaddaxoo loxoom alyum naa bay ndeyjoor min fawxil xuf fi ci kaw bot wa min tarafil asaabihi ci cati baaraam ya wa yaddaxoo mu def loxoom alyusra bay càmmooñ min taxti zalika ci ron loolee su ma yazhaba topp dana deme bi yaddahi ak yaari loxoom ila haddil kaabay ni ba ci catul ñaari dojar ya sarti moom moo bari waaye bu ci masaag rek desee moom yomb na da ngay teg sa loxoom ndeyjoor ci kaw bot bi fa tolloog baaraam ya teg loxoom càmmoñ bi ca suuf loxoom ndeyjoor bi daal di wéy nag bomb rek wéy ba ca dojar ya mel na ni ma koy bëgg a wanee wa kazalika naka noone yaf xam lay def bil yusra ci tàngub càmmoñ waye ci xel waaye day def nag yeddexoo loxoom al yusra bay càmmoñ min fawqihaa ci kawam wal yum naa ndeyjoor ba min asfalihaa ca suufam moom daa bokk ci ñi wax ne bu dee tàngub càmmoñ loxob càmmoñ bu muy féete kaw loxob ndeyjoor bu féete suuf nga boobu nag wéy tàmbalee cati baaraam ya ba ca dëgër ya daa am nañu wax ne loxob ndeyjoor moom faaw mooy féete kaw moo xam ne ngaa nekk tànkum ndeyjoor moo xam ne ngaa nekk tànku càmmoñ ñi nga xam ne moom la ñuy masaaye bot yi daa am melawuñ ca gën a sopp te mooy nii nga xam ne moom lañ ko wane ki fi teew di jàng te mooy da ngay jël loxob ndeyjoor bi teg ko fa tolloog cati baaraam ya ca kaw ndëggu la jël loxob càmmooñ bi teg ko ca suuf loxob ndeyjoor bi mooy ca suuf ndëggu la moom lay nekk kon loxo bi boobu ndeyjoor day nekk ci kaw tànk bi ca kaw cati baaraam ya bu ko defee nag loxob càmmoñ bi nekk ca suufam moom it tolloo moom ca suuf ci ron cati baaraam ya nga bomb nag mu wéy ba ca dajare fa nga xam ne boo doon jàpp foofa ngay raxas ba àgg fa waaye nag melo woowu dañ koo sopp rek jàppal ne bu ñu ne am nga sañ-sañu raay bot yi maanaam massa bot yi noo ko raay ba mu daj rek mu daal di baax am nag jàppandi lool moom wala yam sax du massa xalaa tiinin ci ban fii asfali xuf yi bu nekk ci ron botam wa aw raw si daabat wala neefaraw daaba xataa yusiloxo mbati mu ko dindee bi masin ci fopp aw xaslin wala raxas daa wax ne suufu bot wi bu fekkee dafa amee lu ne neefare daaba wala ban wala dara nga koy dindi ba mu set nga door a masaa nag léegi waaye bul ko masaawaale waxi la waxees na ne yob daw day tàmbalee fii masi asfali yi ci masaa suufum nga dina kambay nit ñaari doyar ya ila atrafi asaabi ba cati baaraam ya li allah yasila ngir mu bañ a àgg ilaa xaq bi xuf yi jëm ci testanu botom wa chey un dara min rutubati ma ci tooy tooy la nga xam ne masa masa ne ko min xufay yi ci yaari botom ya min al xash bi ci ay xaytay woow ñooñu dañoo bëgg a wax ne loxo ba féete kaw moom day tàmbalee ca tibaaraam ya bomb wut ci dojar yi waaye nag loxo bay féete suuf moom na tàmbalee ca dojar ya wut si ca tibaaraam ya ndax bu yàlla dogalee mu rombaale sobe ñoddiwaale ko itam ndegam moom du yéeg bu agsee day yem ca cati baaraam ya kon baax na waaye nag moom loxo bi féeti suuf kat boo ko tàmbalee cati baaraam ya muy bopp bu rombee foofa sobe da koy ñoddiwaale te xam nga moom bu ñëwee ba ca testan la bu ñëwee ba ca testanu badwa du yem ca testanu badwa day yéeg ba fa tolloog dojar ya nga xam ne kon dana taqalaale ca say dàll loolee tàmbalee ca testanu badwa jëm ba fa tolloog dojar ya loola dana taqaale te nee nañu mënoon naa bañ a taqaale ci bu fekkee dangaa tàmbalee woon masaaga ci fa tolloog dojar ya di bomb nag mu wuti cati baaraam ya ca suuf gaa suuf loolu nag am nañu ne muttoon a wax mut loolu am nañu ne muttoon a wax daanaka ndax ndekam nee na la woon bala ngaa masaa bodi na nga seet ba xam ban nekk na ca mbaa neefare daa bu mbaa ay xayta nga dindi ko njëkk kon loolu boo ko defee doon dara nekk foofa waaye am nañu ne kat mën naam nga fàtte ko mën naam nga jékki-jékki tàmbalee massa rek far fekkal na soobee nekkoon fa nga far ko robbi waale loo tax ñu ne kon am nañu waxam jooju mënees na ko jàpp ba tey mu dellu baamuwaat ne wayen kaara dem nekk na fii asfal yi ca suufam nga tiinun ban falaayam sax du massa xale yi ci moom xataa yuusi loxo mbati mu ko dindee ak baamu rek la ñu ko waxee woon léegi su suuf bot wa amee lu mel ne ban mbaa neefare daal mbaa yooyu da nga koy dindi ba dafa door a masaa baabun li ab bunt la fii awqaati salaati ci waxtu yu julli asmaiha ak ay turam daa bëgg a wax julli juróom kenn ku ci nekk waxtoom fa mu tàmbalee ak fa mu yem ak kenn ku ci nekk aw turam ndax xàmmee si yeen tur mooy tax boo yéene nga mën leen ràññeel ndax yéene daa war a ràññee ko ci booy julli amma salaatu subahin daal julli suba fa hiya moom as salaatu mooy julli ga al wusta ga gën inda ahlil madinati fa waa madina nee na julli suba moom la waa madina jàpp ne moo ëpp daraja ci julli juróom ndax bis borom ne xaafizu xala salawaati da caa teg wa salaatil wusta bu tuddee julli yëpp ba noppi ràññeel ci genn day mel ne kon googa mooy ci ëpp daraja dañoo wute gan la nag bu dee ci addis ba daa mel ne takkusaan la gën a wane waaye waa Madina moom julli suba lañ ko jàppee ni moo ëpp daraja ci mboolem julli juróom wax ji gën a war neeñ mooy dañ ko ëmb ci dañ ko làq ngir nga sàmmonteeg julli yëpp ndax nga taseeg moom waxiyee moom nag salaatul fajri mooy julli fenku fajar maanaam mooy julli gi nga xam ne bu fajar fenkee lañ koy julli jubluwute wax ñaar rakk yi nga xam ne mooy ñaar rakk yi fajar nga xam ne moom rax yi batu la maanaam moo ëpp doole naafila kese te àggul ci daraja yi julli sunna moom ñaar rakkay fajar bokkut ak moom gi mu lay wax ni moom mooy ñaar rakka yi nga xam ne mooy farata ji waxtoom day fenku fajar rek moo tax mu tuddee ko julli fajar fa awal waqtiha njël benn waxtoom wa in sidaahul fajri mooy xaruk fajar ga al mu'taridi ay aji tasaaroo béb diyaa ca leer ga fi aqsal mashriqi ci gën jaa sori penku zaahiban mbir mu muy aji dem lay firi waaye daami maxnaam mbir mu muy aji dikk minal xiblati bàyyi ko ci xibla ilaa duburil xiblati ba ci biir xibla wala nga ne ba ci mujug xibla xataa yartafia ba bu muy yëkkatiku fa yaxum ma te muy matale al ufuxa gox ba nee na njëlbeenu waxtu suba mi ngi tàmbalee ci bu fajar xaree ba leer gi tasaaroo nga di ko séen foofee nga xam ne fa la jant ba nar a fenke foofa lay bàyyi ko moom leer googu bu dee tas nag ba tasaaroo ba daj gox bi nag leer bu baax a baax loolu mooy fajar dëgg-dëgg te foofu la moxtaarum suba tàmbalee. dana dema dem ba bët xaw a set nga xam ne bu nit dee ñëw boo xoolee kanamam xàmmee ko bu fekkee muurul kanamam dara ba tax mu naa wa aaxiri waxtu mujj waxtu wa al isfaaru mooy set ga al bayinu gi aji biir allësi ga nga xam ne ida sallama ndem salmal na min xaaca moom ba daa feeñ xaaji bu shamsi catu jant ba ñu waxe moom daa mel ne sàkkalu ko muxtaar ak daroor yi waaye wax ji gën a wër boobu mooy bu fajar xaree ba leer ki tasaaroo foofu la muxtaarum suba tàmbalee dana dema dem nag ba ni ma ko waxee woon léegi bu nit dee ñëw boo xoolee kanam moom xàmmee ko bu fekkee muuru ca dara foofu la muxtaar ma yem daroor yi tàmbalee foofu nag ba catu jant bi génn bu cata jant bi génne rek xamal ne yaay waxtum yépp jeex na fay rek moo ci des waaye jeexal na wamaa la nga xam ne bay na hazayni nekk na diggante yi la yaar waxtu waxtu la waa si xun di aji yaatu wa afdalu zalik waaye ngën ji loolu awaluhoo mooy njëlbeenam nga daa wax ne boo dee seet waxtu suba day mel daa yàgg waaye nag xamal ne julli gu ne nga teel ko julli ba muy door a jot fa saasa moo gën bañ koo julli fa saasay saasa ndax julli si njëlbeen waxtu day am ngëneel loo xam ne bu la njëlbeen garawee doo amati ngëweel loola teew nag niñ koy defee ci Touba nga xam ne bu fekkee du timis dañ fi doxale fukki minute ak juróom gannaaw bañ noddee ndax ku bëgg a fekk si julli mën koo fekk si loolu mu mel ne lu baax la du ko tee nekk njëlbeen gi te dina may ndimbal ci ñu bëgg a fekk si julli gi mën koo fekk si kon loolu mooy suba ba waxtu duhri waxtu tisbaar nag mooy ida zalat ndéem rëcc na asam su jant bi xan kabidi samaay bàyyi ko ci digg asamaan wa axasati tàmbali ak jillu takk ndeer ba fi siyaadati ci yokku ga muxtaarum tisbaar yaa ngi koy xàmmee ci gis ne jëm ju nekk bu xëyee ab takk ndeeram day jëm soowu takk ndeer boobu it gis nga ne day wàññiku rek ndànk-ndànk su wàññikoo wàññiku ba ne tekk wàññikootul nag kon jant baa ngi ci digg asamaan su bàyyi ko foofa nag la ñu wax rëccug jant waxtu jant bi rëccee ker ga day des tuuti léeg-léeg sax mu jeex ci ay jamono waaye li ci ëpp ker ga day des tuuti dañuy bàyyi nag ba ker ga yokk tuuti jëm ca penku nag ñu door a julli tisbaar waxtaarum tisbaar tàmbalee wa yustahabu def na sopp antu axara bu dee fi koy yéexe fi say fi jamonoy cooroon ilaa an yasiida jëm ci ba dolliku dillu kulli shay'in takk ndeer bi leen lu ne rubbu xaxoo kaaram ba bax da dillu ci gannaaw takk ndeer ba ëllësi ba nga xam ne zalat rëcce woon na xale ci moom asam su jant ba jàppal ne taxawaay jëmm ju ne boo nattee ab xasabam ñeenti yoon mooy tolloog ab taxawaayam ba tey ndëggul boppam boo ko defee ba mu juróom-ñaari yoon mooy tolloog ab taxawaayam bu dee jamono yu tàngaay nag ci ni waxee dañuy sopp bu tisbaar jotee nga mën a julli fa saasa bàyyi ba takk ndeer ba yokkul tool ne xasab ndax kaar bi mu wax boo ne taxawaay bi mooy ñeenti xasab kon kaar ba benn xasab lay doon kon na takk ndeer ba tolloon ba tisbaar jot da ngay bàyyi nag ba mu yokkuwaat lu tool ne benn xasab bu dee jamono yu tàngaay waaye loolu bu ko jàpp da ko wax rek waaye li gën a wóor mooy teel a julli rek njëlbeen nga daañu dana ko baamoo ko baamuwaat waaye jàppal loolu. waxi la waxees na ne innama yustahabu naka def na sopp zalika loolee fil masajidi ci jàkka ya li ñu dirika ngir na jot annaasu nit ñi asalaata julli ga. doo amal rajul daal waaja fii xaasat nafsi jagleeg boppam fa awal waqt jël benn waxtu afdalu moo gën la xooñeel ko mu ne am nañu ne bu dee jamonoy tàngaay day tax ñu sopp nga xaw a yéex a tisbaar tuuti mooy day jàkka ja nga xam ne waa jàkka ja dañuy xaar nit ñi ñëw bokk ci julli gi waaye bu dee meenu yow dong moom bu jotee fa saafa rek nga daal julli moo gën waaye jàppal ne rek muy muy jàkka ja muy kenn ci yemoo la gën rek mooy bu waxtu wa jotee ñu daal julli fa saafa ba xile waxees na it ne amma fi shiddatil xarri ndaal ci taru tàngaay wa fal afdalu la gën la xooñeel ko ay yubrida mooy mu seral bi xaa ca moom wa in kaana ak doonte nekkoon na wax doxoo di moom rek te xawli nabi ngir wax yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne abridoo seral leen bi salaati julli ga fa inna shiddatal xarri naka taruk tàngaay wa min fayhi jahannama mi ngi bàyyi ko ci giilu jahannam giil mooy lëgg-lëgg maanaam tàngaayu jahannam mu ne am nañu ne bu dee jamonoy tàngaay kan moom bu fekkee di jàkka ja mu yow dong itam la gën rek mooy nga xaw ko seral tuuti mooy nga bàyyi ba mu sedd nga door a julli ndax yonante bi ne woon na ngeen seral julli gi mooy na ngeen xaar tuuti mu xaw a sedd teg ci ne tàngaay ba ngeen di yëg day bàyyi ko ci giilu jahannam moo tax waaye rek jàppal li gën a wóor mooy moom daal muy yow dong muy jàkka ja muy tàng muy sedd ñoo ci yemoo liñ gën a taamu daal ci yoonu Malik moom mooy teel a julli ci njëlbeenu waxtu wa leeraloon naa itam ni wattu baa ni ñu koy defee moom xéewal la wa aaxiri waqti mujj waxtu wa añ yasira mooy bu mujjee jullu kulli shayin takk leer bi leen lu ne mislahoo di ab kemam mooy toll ne moom bax da julli nisfi nahaari ci gannaaw takk leeru digg bëccëg ba nee na boo bëggee xam muxtaarum tisbaar jeex naam jeexut da ngay seet fa kër ga yemoon ba tisbaar jot nga xool la ci yokk la ci yokk bu toolee ne borom takk leer bi rek xamal ne kon muxtaarum tisbaar foofu la yem takkusaan nag tàmbalee foofu wa awwalu waqtin xasri njëlbeen waxtu takkusaan aaxiru waqti duhri moo di mujj waxtu tisbaar saa yu takk ndeel bi guddee ne boroom rek te konte waale woo ci na keppaar sa tolloon ba tisbaar jot da nga ne foofu la muxtaarum tisbaar yam jàppal ne foofu la takkusaan nag moom tàmbale ba tisbaar yam ci muxtaar rek foofu la takkusaan tàmbale wa axiruhu mu jëm nag ay yasiyee mooy bu mujjee dillu kulli shayin takk ndeer bi leen lu ne mis lay di ñaari caam di ñaari kemam bax da julli nisfi nahaari ci gannaaw takk leer digg bëccëg ba maanaam bu bëggee xam muxtaarum takkusaan jeex naam jeexut te bëgg koo xàmmee ci taxawaay bi da ngay seet na nga xam ne moom la takk ndeer ba toll woon ba tisbaar jot nga bañ ko càkkoonte la ci yokk nag ñaar ca jëmm ja maanaam bu takk ndeer ba guddee ba ñaar ci ba ñaar ci jëmm ja rek te konte waale woo ci na keppaar ga tolloo ba tisbaar jot kon loolu pala muxtaarum takkusaan yem kon nee nga daal muxtaarum tisbaar mi ngi yem ci bu takk ndeer bi tolloo ne boroom da nga cey tag na ne kon su takk ndeer bi ñaar caa boroom waaw kay kon foofu la muxtaarum takkusaan yem waxi la waxees na ne ida staqbalta ndéem jublu nga asam sa jant bi ñu wàcce ko ci sa kanam wa anta teew xaayimun aji taxaw nga xayra mu nakki si mbir moom doo aji jat rësaka sa bopp wala mu taqti in te doo aji sëgal lëxoo ñeel ko kon fa in nazarta ndéem xool nga ila sams jëm ci jant bi bi basari ko ci sab gis faxat daxala kon dugg na al waqtu waxtu wa wa in lam taraxaa ndéem gisoo ko bi basari ko ci sab gis falam yadduxul kon duggut a kon tabiwut al waqtu waxtu wa wa in nasalat ndéem wàcc na xan basari ko wali sab gis faxat tamakkana kon dëgër na bu xoolul waqti tabi ko waxtu wa li mu la wax ni moom bu ko jàpp moom moo ko wax rek waaye sukkandikooñ ko daa wax ne nee nañu soo bëggee xam ba xam takkusaan jot naam jotut da ngay taxaw ni nga mën a taxaw rek bañ a sëgg bañ a teen jublu soow suy bët ne mag yem képp ci jant bi nga xam jant bi wàcc na ba toog suy bët képp yem ci kon xamal ne takkusaan day door jot dong yem ca su fekkee jant bi la tiim nag suy bët féete ko suuf kon takkusaan jotagut su fekkee nag jant bi féetu suuf say bët nag fekkee jant bi féetu suuf say bët nag kon jot na bu baax a baax ndax jant bi bu dee jamonoy tàngaay day yëkkati bu ba ci kaw bu dee jamonoy sedd day wàcc ba ci suuf moo tax takk-takk bi mu la wax bul ko jàpp wala si la nga xam ne wax safa melal na ko malikun alimam malik rahimahu yàlla na ko yërëm allahu yàlla muy am waxtu nag waxtu fiihaa ci moom takkusaan maalam tas fa mooy li fekk gëlut asamsu jant ba mu ne nee nañu li maa li wax ne daal ci ngay xàmmee ni muxtaarum takkusaan jeex na mooy li ñuy wax bu suuf si gelee mooy bu takkusaan suuf jotee ba boo dee xool naaj wi day xaw a xong nga xam ne weexatul nam weexe woon ca digg bëccëg léegi dem na ba xongaay jant bi sóob ko moom itam moom naaj bi mu xaw a xong loolu mooy gellug suuf si su boobaa foofu la muxtaarum takkusaan yem kon nag muxtaarum takkusaan bu bëggee xam jeex naam jeex mën nga koo xamee ci yaar bu takk ndeer ba ñaar caa jëmm ja tegtal la ca bu takkusaan su jotee ba boo dee xool suuf si mu xaw a xong ba tey tegtal la ca wa waqtul maghrib waxtu timis waxiyate moom salaatu shaahidi mooy julli aji teew yaa ni dafa jublu alxaadira aji teew yaa ni dafa jublu ne amal musaafira nag aji tukku ja la yaqsuruha du ko wàññi wa yusalliha dana ko julli ka salaati xaadiri ni ki julli aji teew fa waqtuha waxtoom wa roobu samsi mooy soxu jant wa fa iza tawaarat ndéem suturlu na rek moom jant bi bil xijaabi ca kiiraay la